ساك يا خل إبراهيم مولاك خير الجزاء منادى ريك علاك فعلا بأنك هندي سوردا أبدا وذاكريك في دنيا وأخراك فالدم على صدق والإخلاص مجتهدا في سير والجهر كي تنمو مسياك أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli di mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di siyaar mboole mbokki nekk ci àdduna bépp ak fii ci Touba kawlak mbokk yi nag su ngeen gisee jotaay bi ngeen xam ne am na lu ko waral li ko waral nag dañuy bàyyi si Abdou Lahad Sarr mu dikkal ñu ci ci ay leeral bisimilah si Abdou Lahad. a'uuzu billaahi samiil aliim min asheytaani irajim bismillahi irahmaaniirahim faaraqtu iblisa wa jamia almafasidi wa bismillahi irahmaaniirahim la samtu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaara tey jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi cheikh mahamadul muntaqa mbàkki albasir ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér barkeb sëriñ Abdou Lahad Mbacke ginnaaw bi ñu jotee ndigal ci sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad Mbacke ak njabootu Cheikh Abdou Lahad Mbacke gi yëpp ci bis bii nga xam ni moom la nu baaxoo di ko degal seen bay du baax ja sëriñ Abdou Lahad Mbacke nu di ko doon waaj ay weer ba tey jii mu des ay fan ñu nekk ci wàccaay wi ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ci jot googu ñu jot ndigal li noo ngi ci fàttali bis bi di ko fàttali mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci kër sëñ Abdou Lahad Mbacke ak taalibe yi yëpp bàyyiwun kenn bàyyiwun fenn bàyyiwun fenn. Ah, bu ko defee ginnaaw bi loolu wéy itam buñ tuddee kër sëñ Abdou Lahad waaye tudd kilifa yi tudd taalibe yi danañ ñëwaat ba fii diwaanu Kaolack tudd ci ñaar ci taalibe yi wala kenn muy sëriñ Baye Talla mi nga xam ne ak sëriñ Abdoul Ahad Fall nga xam ne noonu noo nekk fii. Touba Kaolack euh, di di di di jëwriñ di jëwriñ di jëwriñ suñu Abdou Lahad fii ci Touba Kaolack kon ñoom ñoo ngi leen di yëgal bis bi te di leen ko fàttali ñu ginnaaw ba loolu itam noo ngi fàttali bis bi ñi nga xam ne ñoom lañu ko bokkal ñëpp muy mboolem kuy bépp Sëñ Touba wala mboolem ku ab jullit ak fépp foo mën a nekk ci àdduna ñoo ngi lay fàttali bis bi te di la ko yëgal te di la ko bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax loolu nag suñu ko tuddee dañuy daal di ñëw fii nga xam ne fii lañu nekk muy Touba Kaolack di ko yëgal waa kawlak gi yëpp bàyyiwuñu kenn waaye buñ fi tuddee sunub sëriñ sunu kilifa sëriñ Cheikh Sarr nga xam ne lii lépp bu amee mooma day daal di mën a yóbbaale waa Kaolack gi ñëpp kon ñoo ngi ko yëgal mboolem kilifa gu nekk fii ci Touba kawlak waaye di ko yëgal mbokki taalibe yi di ko yëgal soppe yi ak xarit yi ak am di jàmm yi ñëpp bàyyiwuñu kenn. ginnaaw bi loolu wee itam ñoo ngi koy fàttali euh, daairatu yi nga xam ne ñoom lanu ko baaxoo àndal ci at mu ne daairatu yooyu nag ñu ngi ciy jiital nuur Nuuru Daarayni soppe Serigne Cheikh Sarr yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba Kaolack Tabangoy ak daairatu Touba Baxdaat ak daairatu Miftaahu Nasri ak daairatu Nahjul Qadaa'il Haaj euh, njiital ba Bassirou Kebe daayira jaalit maraqib njiital sëriñ Isaaka Fall ak waa Ale Fall yaaram bi yëpp bàyyiwunu kenn waa daayira jaalit maraqib bi nga xamante si moom la sunu yaay yi taxawal njiital sunu yaay ndey gay waa daairatu miftaahul xayri ci njiital sëriñ Bay Ture Jóob waa daairatu nasrullahi ci njiital sëriñ Xaadim Gajaga waa daairatu soppe sëriñ Saalihu ci njiital sëriñ Malick Sarr waa daairatu soppe sëriñ Jili Fata ci njiital sëriñ Ali Thiam ak daairatu mifta mafatihul bisri ak wakaana xaqan ñoo ngi leen koy yëgal bàyyi wunu kenn ak daayira doxa daa fa daa ñoo ngi leen koy yëgal bàyyi kenn ak waa diwaanu kuréelu xasaayit njiitu Serigne Naar Diaw ñoo ngi leen koy yëgal baax baax ginnaaw bi loolu wéy itam ñoo ngi woote bis bi te di ko soññi mbokki taalibe yi rawatina mbokk yi nga xamante si ñoo féete ci diwaanu Touba su ma nee diwaanu Touba nag dinaa tudd ñaar rek muy waa Daarul Minan ak waa Touba Soudan abadan ga nga xam ne man Abdoul Ahad mi foofu laa dëkk ñoo ngi leen koy yëgal bu baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn te di ko yëgal waa Touba Mérina Sarr bàyyiwuñu kenn ñoo ngi leen koy yëgal baax a baax te di leen ko fàttali bu baax. bi loolu wéyee itam eh, ñu ñëw ci bis bi ne nga xam ne noonu lañ ko baaxoo di ko amele baaxoo nanoo def waxtu wuñ duggee ci weeru baraxlu weeru rajab buñ ci duggee rek lañuy ñuy tàmbali njàngum alquran mi ak njàngum xaside yi waaye di ko ànd ak daara yi nga xam ne ñoom lañ ko baaxoo àndal yëpp. Euh, bu ñu ci tuddee daara Serigne Cheikh saar nga xam ne moo ci jiitu ak mboolem daara yi. booba ba tey ñu ngi ci limi alquran ji waaye ak ci limu xaside yi. mel ne amagun nañ ci ay lim yu yaatoo yaatu ci alquran waaye amagun nañ ci ay lim yu yaatoo yaatoo yaatu ci xasida muy bu nu korité ba mu am fukki fan ak juróom ndigal loolu sëriñ bi moo nu ko joxoon muy nañ koy def te bu nu korité ba am ci ba mu am fukki fan ak juróom loola nag mooy mooy bis bi nga xam ci lañuy tëjee liggéey bi. waaye liggéey moom tàmbali woon na bu yàgg yàgg yàgg yàgg nanu koy tëjee nag mooy bu nu xëyee danaan fa amal ay bernde yu ama am solo yu yaatu lool. nag bi loolu wéyee buñ xéwloo ci waxtu añ dallu ba euh, waxtu tëkkusaan buñ jullee tëkkusaan ba noppi kon nag ci la ñuy jàngaat ay kaamil ak i limi xasaa it mottale ko lim yi nga xam ne moom lañu doon jàng ci euh, ci ci rajab bi ba tey su ko defee ñu xool lim bi nu mu toll ñu jël lépp bind ko jébbal ko sëñ Sidi Mbacke moom sëñ Abdou Lahad mhm. njàngum xasida mi nag danañ ko tàmbali ci euh, ginnaaw bu nu xiwloo ci waxtu reer ba noppi da ci ànd ak nag ay jàngkatu xasaa it yu mën a jàng lool te ràññee leen kon loolu mooy programme bi nga xamante si noonu la liggéey bi di doxee incha allahu rabbi jëm ak ñun ba fajar incha allah kay kon jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi mbokk jullit ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaare ku gis uh, toogaay bi nag xam ne am na lu xew li xew nag du leen lu cant sëñ Abdul Ahad Mbacké bi ñuy def ñu koy def chaque année ñu ngi koy def ci fukki fan ak juróom ci weeru korite maanaam buñ ñu koritee ba pare ci fukki fan ak juróomi ci lañ koy def ñu ngi koy defee fan tabangoy nag kër Baye Cheikh Sarr foofu lañ koy defee ñu ngi ciy woo mbokk jullit yépp ak mbokk taalibe yépp rawatina ak daayira soppe Cheikh Abdoul Ahad ndax ñoom ñoo moom bés bi ñu ngi ciy woo mbooleem daayira ku dégg wax ji rek na nga xam ne mooy sa bu woote di leen nuyu baax di leen ziyaar asalaamaaleykum wa rahmatullah